waaw li ñu jot a def fii mooy daje ak sunuy nattangoo juróom-benn commune yeneen parce que juróom-ñaari commune ñoo fi daje ñu weccoo ay xalaat weccoo aussi li nga xamante ni ay doxalin ñeneen ñi liñ ñu won gis nañ ko dégg nañ ko suñ demee dinañ ko jéem a jëfe waaye ñun tam li ñu leen won ci wàllu état civil jàpp nañ ne ñoom dinañ ko jëfe ndax ñun dañu seetlu né jurbel biñ fay fay si ñun di nekk maire dafa keuyit yu bon dafa bari won yo xamanteni da ngay dem ba ya nga soxla ko ñëwaat ñu naan la registre bi amu fi wala ñu ne la numéro bi fictif la wala ñu ne la amu fi nga daal di nekk ci jaxlé amna na xamné dem nañu ba wara def bac sax wala ño xamné dem nañ ba am licence wala le diplôme bu ko ëpp ñu dem di wut ci waat keuyit mu nekk problème ci ñoom ñu ne lool nak dañ ko wara safara biñ koy saafara ñu ànd ci ak OFLOC ànd ci ak ARD ànd ci ak ay association ak ay ONG yu nekk fenee Jurbel ñu booloo ne nañu def tout pour xeex lii nii xeex boobu noonu niñ ko defee mooy li ñuy wax ay ay kuréel ci biir quartier yi quartier yëpp ñu dem ca waxtaan ak ñoom pour wax leen ku bëgg am këyit këyit bu mën a doon fan nga war a jaar nan nga war a def muy benn ba dootuñu am ay këyit yu bon leneen la ca topp tamitam ñu wax leen Euh, ñu defaat ay émission rajo ak ay caravane pour wax leen fi nga xamante foofu la ñu war a jaar ba kenn ku nekk jàpp nañ ne war na ko mën a xam ñu boole ko nag jox leen dañuy wax ay cahier de quartier yoo xam ne délégué de quartier yi dañ ciy bind ñi nga xam ne musuñu buggoon a am benn yoon kayit dañ ciy insister que mosutoon a am kayit ñooñu noonu bi biñ ko bindee amoon nañ ci lu war a jege fukki junni yu teg yoo xamante ni bindu nañ ca ñu dem ci tribunal fexé ba gissé ak ñom ba ñu war leena dafal li ñu wax audience spéciale bo xamantene da fay tax ñu gaaw am seen këyit donc këyit yu bon yi japp nañ ne dana fa joggé en tout cas dana ko bu baaxa baaxa baax lool nonu loolu askan bi la waye leneen la ca top mo ci walu mairie ak kom komam am yokute bu ci am ndax ñi daan dem di jaar feneen di neexale ay xaaliss pour mën a am kayit dañu ñëw directement su amee lu ñuy fay ñu fay ko foofu noonu ba tax na am na at moo xamante ne ni juróom-ñetti million donc la état civil génne woon waaye bu ñu taxawee xeex ci loolu noonu jàpp na fi mu nekk nii si nañ at mu ne ci lu war a jege ñeent fukki million kon li juróomi yoon lañ daan am dañ koy am fi mu nekk nii jàpp nañ na nag liggéey biñ ci def ànd ci ak oflok ànd ci ak euh, ind euh, ecopop inda ak euh, ñi nga xamante ñooy kuréel ya nekk fee ne ci njaareem ñu di leen sant di leen gërëm loolu moo ñu tax ñu am résultat bi nga xamante ni am nañ ko tey donc wàññi nañu këyit yu bon yi fexe nañu ba ñu bari ñu amatoon këyit am këyit waaye fexe nañu ta jural nañu njëriñu tam fu ñu doon am benn am nañ fa juróom-ñett. En vérité, euh, pendant deux jours, nous avons échangé nous avons partagé avec les six autres communes parce qu'il s'agit aujourd'hui de la présence de sept communes qui se sont affiliées à ENDA ECOFOP avec la coalition OFLOP. Euh, on a échangé d'expériences. Euh, chaque, commune a eu un domaine dans lequel il a mis le focus. Et nous avons partagé ces expériences que nous sommes en train de capitaliser afin de pouvoir les, de nous en approprier et de faire le réinvestissement au niveau de nos communes, chacun. ce qui fait que nous, à Durbel, nous avons mis fondamentalement le focus sur l'état civil qui a connu de véritables problèmes que nous sommes en train de régler au fil du temps. Le problème est qu'il y a eu un vaste réseau de production de faux, de, euh, documents en général et cela implique une évasion fiscale naturellement. Parce que quand cela est produit de façon frauduleuse, naturellement les finances de la mairie en pâtissent. Et nous avons au niveau de Durbel, au niveau, avec la coalition et une association euh, d'ONG, mais aussi d'autres associations citoyennes, nous avons essayé d'endiguer ce phénomène-là, de production d'abord de faux documents, mais aussi d'évasion fiscale concernant l'état civil. Et ce qui a fait que avec ces associations, nous avons euh, eu une série de forats au cours desquels nous avons procédé à la sensibilisation des populations euh, sur la démarche à suivre, mais aussi de la gravité et des effets néfastes de la fraude à l'état civil. Ça, c'était premièrement. Après cela, nous avons donné à chaque délégué de quartier un registre dans lequel il inscrit les personnes n'ayant jamais eu une pièce d'état civil. Une fois que cela a été rempli, nous avons négocié avec le président du tribunal d'instance des audiences, ce qu'on appelle des audiences spéciales pour la production de, de jugements qui seront transcrits après au niveau de la mairie pour que véritablement ces personnes-là puissent avoir leur pièce d'état civil. C'est ce que nous avons fait et nous avons pu constater que ce réseau de production de pièces fictives a été véritablement enrayé. Ça, c'est premièrement, c'est au bénéfice, bénéfice des populations. Mais second avantage, c'est que on a vu euh, les recettes de la municipalité, en tout cas en ce qui concerne l'état civil, passer de 8 millions à 40 millions, donc du simple au quintuple. Ça aussi, c'est un effet positif euh, que nous avons pu constater et nous avons partagé ça avec les autres communes qui, qui étaient là.